gaay gaay gaay gaay lii yëpp lii yëpp li boot si ginnaaw moo bari. man damay dund coono la métti ay coono yu garaaw laay dund man bi ma nekkee booy sama responsabilité am na ñoo xam ne man maa tax ñu bàyyi banditis man maa leen taxal jabar du ma ko cité gu mel ni Ibra Dieng ma nekk xale bu leen dama ko tax bu ñu ko doon jàpp ko doon wax naan maa yow ñooy ànd dem kaso mais daf koy dóor dóori métti pour mu mën a dem rek mais loolu yëpp dama ko dund fii. man bi ma amee quinze a lan sama papa gaañ mais dama dama dund ay yu bari fii wallaahi nu ma la man sama gox ma ma mos a ñor wallaahi man dama mos a koo xamante ne di jël alal jàmbur wala ngay def loo xamante ne ah du dëgg man dama ko mos a bañ sama laaf mais dama mos a jaante sama àdduna ne di bu dee njàmbaar moo lay rey sa da ngay dee quoi gaay mos a gëm la man coow yi ma coow yëpp ay nit ñoo tax gaay a gaay gaay